auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim jërëjëfe Serigne Touba jaraw lakk maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp mbokku senegal ñu ngi leen di nuyu ñëpp di leen jaare bu baax a baax tey ji nag ñoo ngi fii ci Dakar Géejawaay arrêt du Balès kër Serigne lamin Bara Fall tey nag ñu am benn recette bu ñu leen doon may di leen ko présenté bi nga xamante ni dafay jëm ci lépp loo xamante ni muy euh, remède naturel pour wàllu doole wàllu ngóora wàllu kàttan ak wàllu sëy Euh, remède naturel bi nak bu ngeen euh, ko composé plus tout ce qui est vert lu mel ne ko nana menthe, nana ordinaire ak nana face bi kon nak ñetti xétu na menthe yi limon limon ngay mais ñaari rek lañuy utiliser ak surtout persil persil bi muy persil muy persil fleur ak persil chinois kon nak ñaari xétu incha allahu rabbi ci kàttan yàlla ak baaxam ak yërmandeem euh, ak composant bi nga xamante ni mooy miel lem bi nga xamante ni moom lañ koy faral di sucré kenn du ko sucré ak sucre blanc xam naa dinaa ci dellu si. ndox bi ñu koy toggee nag mooy benn biteelu ndox biteelu ndox mi nag mooy ni un litre et demi moom lay nekk biteelu bu un litre et demi d'eau incha allah. loolu dana baax incha allah benn ñaar ñetteel incha allah jël en premier lieu ñu def jingeer bi ah moom la ñu jiital mbokk yi recette bi nag ñu leen di may ah, wax dëgg yàlla sama mbokk góor ñi euh, seeni soxna bu fekkee ñoo ngi ñuy seetaan mën nañ ko télécharger vidéo bi bu seen borom kër ñëwee ñu won leen ko présenter leen li nga xamanteni moy reset bi tay jigen ñi mën nañ ko defal seen borom kër ñen goor ñi xamanteni ñom ñomit mën nañ ko defal seen bop yomb na simple na comme ni ma ko présenté rek ngeen defé ko non euh la ca dess moy dañuy jël la ca dess moy ñu jël citron bi insha rabbi mo mu de ñor manam dañ koy bàyyi mu ñor bu baax a baax a baax baax ba ñor ba bax bu baax ba lepp yabbi loolu itim am ci solo insha allah kon nak mbokk yi ñoo ngi dellu soir insha allah en attendant suñuy recette bi di ñor ñu dem publicité insha allah rabbi ñu dem suñu rubrique conseil santé ñoo ngi dellu soir léegi léegi tay ji nak ñu fassiyene waxtane lenn ci li nga xamanteni lu sonal askan wi la muy Epati hepatite B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 169 45 45 foo mën a nekk ci réew mi ak bitim réew dinañ la ci mën a ba luy dañ allah jërë ngeen jëf merci beaucoup ci seen rubrique info santé Serigne Lamine barafal Fall. voilà mbokk yi gis ngeen ko nii ñor na xom macha allah vraiment mel na ko bëggee woon incha allah rabbi ñoo ngi ñaan nag sunu borom képp ku ko jëfandikoo ni ko waxee rek yàlla dimbale ci te ñoo ngi ñaan ngeen koy télécharger ko partager ko ndax detaay yi ci wara am yépp rek wax nañ leen ko xam nga am na ci nga xamanteni mom ay jaañeen lañu wala ay ñegeen lañu yoom seen yewu da xaw dess lool dañuy nekk di wote di laajaat li ñu koy baxal ak lii ñaata lañ ci def te lepp bind nañ ko te lepp it wax deug yalla wax nañ leen ko wala génn ñu fay suñu gaz comme ni ngeen ko gisee dal de sotti ni lañ soxla won ci butéelu 1 litre 50 la wara nek lepp lepp lepp lepp ma sha allah ci butéelu 1 litre 50 bi dina nek li nga xamante ni moom ngay mën jël def ko ci sa bir frigo comme ni ngeen ko gisee verre boisson nga ci jël goudi gu nek ginaaw so reeree ba paré chaque goudi nga ci jël ben yoon par jour chaque une fois par jour ba bo reeree ba paré nga ci jël waaw comme niñ leen ko wanee won légui nak kon nak recette bi moom recette bi nit ki war na ko jël gàtt gàtt gàtt gàtt pour quarante cinq jours respectif quarante cinq jours respectif nit ki du tëb.

mbir yi jël kuddu cuillère ak kafe nga koy suukaree ak miel lem bi nag ça dépend ci nit ki lem bi nag ça dépend ci nit ñi am na ñi nga xamante ni lem bi ñuy soxla dafay bari am ñoom te ni tuuti lem bi moom amu ci importance nga mélanger lépp saa boo koy naan nag ci ngay jogaam def miel bi ñi am jabet ñoom jarul ñuy utiliser sucre blanc jarul ñuy utiliser lem bu fekkee itam lem bi amul danger ci ñoom lool mën nañ ko utiliser incha allah waaye daal kenn du ko def ak sucre blanc loolu moom waxoon nañ ko bu baax bon appétit jërë ngeen jëf. kon nag bépp góor bi sa soxna sore na la ah mën nga xaar tuuti ba mu jegele nga doog am lii moom macha xam nañ ci am na solo trop trop trop trop trop macha allah ñi ko jël ñëpp wax dëgg yàlla suñu borom def na ci tawfeex ndax nit day faj docteur di faj mais yàlla rek mooy kii mbokk yi. ñoo ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñiy faral di sa tànn suñuy vidéo soo bañee sunu prochaine interview raw la bësal ci abone nga bësaale cloche bi incha allahu rabbi jaa ngeen jëf merci